naa ñu ngi jéggalu bu baax kàddu yi di nuyu bu baax a baax sëriñ bi xam ne mooy woy juru suñu naataango bi fi bàyyeekoo di sëriñ Malick Sall di jiital ci kàddu yi inna lillahi wa inna ilayhi rajiun di leen ko jaale di ko jaale mbooleem njabootam waaye di ko jaale mbooleem ay am di jàmm kàddu njaali nag du sunu jëmm yi waaye jëmm mbooleem waa daara ji la ci biir waa daara ji waa aar daara xëy na xat-xat yi moo waral ñu yamale ñu dikk nii waaye bu lu woon ak loolu nu mel ne lañu defoon ba ñuy am xew-xew fii noonu def te su boobaa it mbooloo mu gën a takk mu ñëwoon danañ ñëw ngir yàlla yëg ne kenn ku bokkoon ci nun moo dem bi mu génnee àdduna li ñu njëkk a fàttaliku mooy laata aar di ñëw fii ci Koungheul guddi yu yàgg ak i bëccëg yu yàgg la toggool ànd koog Serigne Mbaye sàll mi ak mbokk yi ñu ko àndal ngir yàlla ak bis boobu mu ànd mu jaraloon ko lu nekk bi ñu njëkkee wax ma leeralal ko aar daara ak li ko tax a jóg fekk am na yu mu doon dégg waaye mu jëfandikoo njaakum faasixum bi nabayin fa tabayyan maa ngi rappelé ci benn numéro euh, Expresso ci la may yónnee woon message di ma laaj fekk sëriñ Babacar Sall mii moo doon suñu bunt ci gox bi ñu ne ko woon nag gannaaw mbirum aar daara du mbirum benn kuréel mais mbirum daara ji la bu ñu sañoon kuy doomu daara nga contacté ko wax ceeg moom yëgal ko sunu dikk foofu moom it noonu ñu ko sàkk woon noonu la ko defee tuddal ñu ay kilifa yu bari ay responsable ca biir ñooñu sëriñ Malick mii fi bàyyeekoo bokk ci bu gisee moom waxtaan ak moom sëriñ Malick doyloo kàddoom waaye nag mu am yenn yu mu dégg mu woonu leer lu ñu leeralal mu ne soxlaatuñu beneen leeral kàddu gi ma dégg nga wax ko doy na engagé wu nañ ànd ak yéen ci liggéey bi ndax ñun doomu daara lañu daara dong nu ñor lépp lu ñuy taxawal ngir daara ñi ngi ci biir kàddoom googu mu waxoon ne engagé wu moo waral bi mu demee ba am ay gàllankoor ci dëkk bi ci ay autorité bëgg gàllankoor bis boobu noonu le mu jaral ko lu nekk ngir yàlla ak kàddoom ga mu waxoon waaye ngir yàlla ak deretam ji nga xam ne daara moo ciy daw fuñ ci toll it danañu jokkoo téléphone mu ne ñu fii la ñu toll lii la def bu ñu demee ba bërëb biñ ko doon bëgg a amal am gàllankoor yuñ ci dugal engagement demoon na ba yegg ci buñ demee ba ci benn daara lañ ko war a defee danañ ko fa defee fekk ñu nit jël nañu sunu engagement bopp ne même bu ñu ñëwoon Koungheul nu fenn fu nu dal fu dul danañ wàcc ci digg Koungheul mm-hmm. gaare sunu oto mm-hmm. ngir dëggalee ko ne la 15 waxoon nañ ne danañ ñëw Koungheul. ñun danañ ko def. danañu ñëw Koungheul gaare sunu woto def sunu déclaration ñibbiwaat Ndakaar waaye ngir yàlla ak yitteem ak mbokk yi mu ko seqal moo waral ñu amaat bërëb boo xam ne mel na ne fañ ko bëggoon a defee wala mu gën ko yaatu. noppaluwul nelawul du alalam du taam du dara ba yàlla dogal bis bi ànt keroog bi ñuy ñëw bi ñuy ñëw ci yoon wi nii ñu ñuy jël si fi ñu jaar maa ngi ràppale mbokk yi ne ndeysaan bi ñu fiy ñëw même yoon wii lañ ñu jaarale woon ñu waroon a yegg ci sumu dal keroog ba ñu ñëwee kanamam image ba léegi mi ngi des ci sunu xel ci dalal gan yi ci yaatal kanamam ba ñu dem sa jàkka ja te jumaa ja fi ñu doon defee xew-xew bi bi ñu tollee ci mu war a jël parole mu jël parole ñëpp xam ne doomu daara la ju aliwaam bënn doomu daara la ju aliwaam bënn macha allah waaye tamit boroom engagement la ndax kàddu yam fa wax bi mu génnee àdduna ñu ngi ko jëloon di ko paasante ci groupe WhatsApp yëpp ku ko dégg dégg kàddu yam doon wax da xam ne pas-pas moo gunge kàddu yooyu loola waral bi ñu yëgee génn àddunaam dañuy yëg ne kenn ku bokkoon ci nun waaye nekkuloon membre simple mais kilifa la ci biir li ñu bokkoon ci liggéey bi di aar daara moo fi bàyyeekoo moo tax waa aar daara yëpp yëgandoo bi ma yëgee xibaar bi maa ngi ko yëgee ci groupe numéro un ci aar daara bi dama julli timis rek taal sama connexion dugg ci groupe bi rek gis photoom ma ne teg waaye gannaaw mbirum réseaux sociaux yi la munuma cee àddu munuma koo tasaare lu dul ñëw naa ba ci source bi ma jëlee fii xibaar ci laa woo sëñ Abdoulaye Sall jotuma ko téléphone am xam naa dafa fay wala réseau yi la ma woo sëñ Mbay mu ne ma loolu de la yàlla dogal ci laa soog di yëgal mbokk yi mbokk yam même yëg-yëg bi ma am rek moom la yëg mooy nit ku dogu nit ku am engagement waaye nit koo xam ne nii ku am yitte la moom moo fi bàyyee ko gannaaw nag li ñu bokkoon ñoo ko bokk waar wi ñoo ko bokk da doon jaadu waa aar daara kenn du des te bu ñu ne waa aar daara mboolem kuréel yi ñu bokk di ci yëngatu ci wàllu alxuraan waa aar daara mën nañ leen teewaaleel ndax aar daara du kuréel bu beddeeku ci biir kuréel yooyu waaye ay membre rabita ñoo nekk ci aar daara membre fédération ñoo nekk ci aar daara membre wahdatul kataatib ñoo nekk ci aar daara membre madarisul quraniyatul asila ñoo nekk ci aar daara membre jamiatu wa sunna ñoo nekk ci aar daara ak yeneen kuréel yu ma tudd aar daara nii la composé woo moo tax collectif lañ ko tuddee collectif aar daara moo tax sunu teewaay bii nii mbooleem ñi ma tudd ak ñi ma tuddul mën nañoo wax ci seen kàddu ne teewaaleel nañ leen ndax nun la yàlla dogal ñu yónni ngir ñu nekk seen coordonnateur kon bu nu teewoon suñ jëmm yi kese mel na ne ñëpp teew nañu rawatina ñu ànd ak mbokk mi di sëñ Saalihu Congaan moom it bu teewoon rek waa daara jëpp teew nañ ndax waa daara ji kenn du ko laajteeti ci dégg turam te li tax turam yegg fi mu yegg engagement am ci daara ci liggéeyal ko ci temps ci alalam ci ay guddeem ak ki bëccëgam moo tax ñëpp di dégg turam yamu rek nekk sëñ daara bu yori daara toog ci daara ji di jàngale waaye dafay laaj bu daara ji soxlaa jëmmam mu teew bu daara ji soxlaa ñu war a génnee kenn du ko ca jiitu bu daara ji soxlaa xalaat kenn du ko ca jiitu kon man bu ma ñëwuloon moom dong mu ñëw doy na sëkk rawatina ñu ànd ak mbokk yi ñu àndal sëriñ sekk sëñ Alioune sekk woy juram di sëriñ Souleymane sekk sëñ daara mm-hmm. newoon ca Medina bàyyi nga xam ne bari na Kaang mooy bay mooy baayam. maam la sëñ Souleymane Seck. waaw doomu sëriñ Souleymane la. Ah. ngoog ah. nga xam ne moom rek sax bu ñëwoon tamit hmm. mën na yóbbaale waa daara ji yow. waaw ndax baayam defe naa ku ko gisul dégg nga turam. Hmm. ku nekk Kaolack. Hmm. waaw sëñ Daara Souleymane Seck. ñu may mi may wax ne sax defe naa sañ Mbay ñëwoon na. im génne àdduna jaale si kële mooy sëñ Ibrahima Diop moom moo nekkal aar daara fële ca Kaolack moom it di borom yitte tey bu ñu indi woon oto bu gën a yaatu defe naa délégation bi dana gën a yaatu waaye dañ ne rek gannaaw jamono xat na man maa ñaan mbokk yi ci ndakaaru ne leen rek nañu jël ñi ci Kaolack ànd ak sëñ Saalihu Congaan bu ko defee ñu dem wuutu mbooloo mi yëpp bu defee daal ñii ñoom ñoo teew ñëw di leen massawu suñu fereer bi nu ñàkk di leen masawu sunu mbokku daara bi nu ñàkk waaye di leen masawu borom yitte ju kawe ji nu ñàkk ndax daara ji fii mu toll ku amul fit doo ko liggéeyal te borom fit woon ku amul njàmbaar doo ko liggéeyal amul xel mu rafet doo ko liggéeyal yooyu yëpp yàlla dajale woon na ko ci moom te tabaarakallah kon kenn koo xam ne keno la woon ci biir liggéeyu daara ji moom moo dem ah yàlla borom sutura la yàlla yàlla may nu xol bu ñu ko muñee yàlla na yàlla seral ginnaawam li mu doon góor góorlu ci diina ji ci alquran di ko jëmbat ci ndawu jullit ñi yàlla na yàlla wërsëgal ko meññat mu mu fekk ko ci bàmmeelam ña doon tàggat ñu bokk ñoom ñëpp dajeeg moom ëllëg ci aljana te kanamu yeneen ci yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu tappal ko médaille yooyu muy tàkkal ñooñ alquranul karim yal na yàlla dogal loolu noonu le incha allah loolu la yàllay dogal ndax ahlul qurani hum ahlullahi wa xaasat ñooñu nga xam ne nag ñooy njabootu yàlla te ñoom la yàlla jagoo moom ca ñooña la bokkoon te ca la nekk ba wuy ji loolu moo mat a sant yàlla mooy génnul ci waaru daara ji ba wuy ji am na ku ne ci waaru daara ji daara ji li ñuy wax ne ñagas na dëgër na waaw léeg-léeg balaa faydu bi ñëw lu yàgg lay doon waaw waaye ci biir ñagasaay boobu ak dëgëraay boobu ci la nekk reculer wul delluwul ginnaaw am na ñooñ xëy na dañoo yaatal daara ji nekk ca marché ba nekk feneen nekk feneen waaye ñu volonté wu toog ci daara ji nekk ca waar woowu ba wuy ji yàlla loolu mbokk yi rëy rëy la te loolu ko yàlla séen yal na ko yàlla yërëm amiin amiin yal na ko yàlla jéggal yal na ko yàlla xaare àjjana ci tur waa aar daara yëpp mu ñu tuddee imam Khadim Ndiaye tudd Serigne Babacar Sylla mu yóbbaale mbooleem waa aar daara ñu ngi leen koy jaale di ko jaale wayjuram yi toog sunu wayjur di ko jaale fereeram yi ay magam ak rakam di ko jaale ay soxnaam di ko jaale mbokki taalibe mi waaye di ko jaale ndongoom yi nga xam ne ñoom la doon def ci ñoom alxuraan ñoom ñëpp ñu ngi leen koy jaale waaye di ko jaale waa aar daara bu Koungheul mm. ndax bu ñu ne aar daara ci fii aar daara marqué empreinte am fa ay membre mm. yoo xam ne yu dogu lanu mm. Koungheul mën nañ ne buñ dul première ñoom ñooy te mën naa leen tuddee sax première ndax ñu aar daara jaral ñu déplacé wu jugee ko Koungheul ba Ndakaaru ngir yàlla xew-xewu aar daara loolu yombul te noonu la ñu dogoo woon fépp fu aar daara war a dem ba ci yoonu Cees bi bi nu ko jàppee yàlla dogal mu fomm dogu woon nañ ba war a ñëw ngir fekkee si te noonu lañ ko dogo woon ne fu ñu mënti dem ci biir Sénégal danañu jógee ko Koungheul ànd ak moom kon ñi ngi leen koy jaale di teg njaal li ci loxo sunu bunt ci dëkk bi waaye ki nga xam ne mooy sunu buntu tamit ci liggéey bi ci aar daara ci dëkk bi ak li ko wër muy Serigne Mbaye Sall salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu bisimilah. koy xeeb nag waa aar daara ñoo ko barkeeloo. ok waaw dikk gi rek ñun bu baax. a baax jotaay bi nga xam ne tey jotaayu alquran lay firndeelaat. dëggal mooy yaakaar bi nekkoon si diggante ñaari wëllëre. suñu coordonnateur bu Oustaz Makhtar moom dañ koy jaale ndax Malick dafa nekkoon koo xam ne euh, dafa jëloon boppam jaay ko alxuraan euh, xam naa ne yàlla nangu na loolu te jëmm ji euh, fu mu mënul nekk bi yàlla defoon ci mënoon na ci am bu nekk bu walanteeroo nag nekk fii nii ngir nit ñu bëgg xam yonent bi sallallahu alayhi wa tax mu defal leen alxuraan bu leer ci diwaan boo xam ne nii amul yenn moyens yi te mënoon dem fu nekk am Euh, li li borom euh, sëñ daar yi am mu toog fii di jàngale ngir yàlla ak yonent bi àgg na fu baax amee njëriñ euh, loolu laay wax ne ku gudd fan la mais niru nañu ku gàtt si xam ci saayir waaye soo xoolee trente deux cent nit ku réagir bi nit dina dund téeméeri at réagir bu kon ñu réagir kon loolu dañ ci sant yàlla di ñaan itam mbokki ji ñu am benn référence ci moom mooy dëggu xam ne yàlla kese moo nekk ci li mu wax ci buntu aar daara bi man man naa ko fekkee ko de mm-hmm. euh, woon nañu fi guddi boo xam ne kii mu ngi fa teewoon ñu bëri ba ñu ba ñu reculer moom bokkoon na si ñu ne man fu ñu tëj kii dañ ma denc ngir alxuraan mm-hmm. loolu loolu loolu daf ma marqué woon dem nañ ba mu des ñaari fan amuñoon fenn fi ñu ko defee mais ba fi ñuy waxee ba fi ñu ba bis bi ñu koy kii recul wuñ ne bis bi dina am. yàlla dogal ko nag mu rafetalee ko nu ñu ko jaarale. waaye say xarala ba nox boo gis rek. bànneex moo ci tegu. lépp lu ñuy def yàlla na ko yàlla gën. amiin euh, ñi nga xam ne ñoo jiyee ko dakaar ak ki nga xam ne moo jiyee ko Kaolack. ki moom suñu sëriñ la parce que ñun suñu àll mu ngi àggee daanaka ci daara bàyyam euh, mooy. Euh, si sëñ Souleymane Seck moom itam mu nekk nit koo xam ne ku marqué alxuraan la loolu tey bu ñëpp teewee fii nii day mel ni moom teewal na alxuraan mm-hmm. kenn du fàtte Souleymane Seck li mu daan def kokoto ak képp koo xam ne mu ngi yëngu alxuraan bu loolu yegsee rek day mel ni alxuraan moo ñëw feddali xat ko lëre ndax loolu firndil na ko euh, ki nga xam ne moo fi nekkal fédération bi si buntu bi secrétaire euh, mooy muy nii euh, mooy kii bii nii si bi sëriñ Mor Si sëriñ Mor Si mhm. bàyyam moo defoon discours arab boobu mhm. mooy euh, te mu nekk fii nii mag la woon waaye walanteeru ne fu ñu ko mëntu defee dinaa def xatma mhm. dinaa def xutba bi te gis nga kerek bi muy ñëw sax dañuy dafa doon sukkandiku ak xetam pour ñëw keroog bi ngeen demee ba léegi bët bu set mu laaj ma la ñaanal mm-hmm. ndax xol bu set boobu la bu ñu bi ñuy dem Dakar tam mu kii na ko yëpp fu ñuy dem mm-hmm. demal mm-hmm. loolu man maa ko doog te bu fekkoon sama tànk man na ko man maay dem loolu ak sëñ Modou Bassir mi nga xam ne ni tey euh, buntu alxuraan la ci Koungheul lu ne def na ko waaye xitteem yëpp mooy muy aar daara képp koo xam ne ni itam mu ngi ci département bi di yëngu ci alxuraan euh, li ñuy wax mooy nangu nañu seen njaal te ñu ngi leen di masuwu coono yooyu sëñ Oustaz Bàcci Diallo mi nga xam ne nii moo itam xitteem yëpp mooy alxuraan fii nii moo tegoon ci maalo ci xitaab ma ma jigéen yàlla yàlla may na ko loo xam ne ni moom itam yombul parce que moom mu ngi mu ngi si bu bu defee benn programme ni bu mm-hmm. xamee ne ñun ñoo soxla mm-hmm. lépp da koy bàyyi pour ñëw mu di la waxal ne fii ci Koungheul mboolem ñoo xam ne ñu ngi yëngu ci alxuraan mm-hmm. ñu aar daara collectif noonu lañ def benn lañ ak mbootaay bu mënu bokk moom bu aar daara soxlaa ñëppay dem loolu itam bu ñu ko yëgee depuis démb ba léegi ñu ñëpp taxaw nañ ci temm pour gënoon na am nu mu demee mais comme bi suñ jàll la am na yoo xam ne ni daanaka nu am na muy demee la rek waaye konoon dana gën a mel neneen euh, di la wax rek ne yoon bi nga tegu da ko wàcc yàlla moo lay liggéey loolu métti na euh, ci saaxir mais bànneex la ci jullit bu xam lan mooy euh, yàlla bu tegee nit natt natt bu bànneex mooy teg la ci yoonu siraatal mustaqim la si si ndaw bi maa leen na si a ñu ngi koy jaale mbokki jullit yëpp di ko di ko masu coono waaye nag sëñ Modou mi itam teene toog ne ñu ngi ko koy jaale bu baax ndax nit la koo xam ne nii bëri na may fu alquran soxla du ko du ko fàtte alquran mën ko fàtte yal na ñu ko yàlla fayal am na ñoo xam ne dañuy jëf te duñu wax loolu dafay bëri si nit ñi te ñoom alxuraan rek moo leen ñor yal na ñu ko yàlla fayal moom ñii nii nga xam ne ñoo taxawoon daar jëpp sëñ Ibrahima Mbaye mi nga xam ne moo jiite parents d'élèves yi ak Sirif Sarr ñoom ñëpp ñoo bokk waa Daara Afsa ak euh, Moustapha mi nga xam ne moom mooy magam mm. moom itam mu ngi yoon ci buntu moo doon def réagir mm. mais alxuraan bi nekkoon ci Mali moo nekk ci moom ñu bokk fenn mm. la ndax nekk sarak nga koo xam ko yàlla la ndax suñu nijaay la suñu doomu nijaay la mais suñu ay magaraat sama bàyyi kii ay am na foo xam ne maga a rakk leen fa mais moom itam suñu suñu doomu ni xaq bi waaw mu bu paree après ñu dem ci daara yi fee incha allah fekk fa taalibe yi tey mooy woy juróom Mor Diabou Diagne Mor mu itam nit la koo xam ne ni man woy juróom jigéen mooy kay waaw woy juróom waaw Malick waaw ñu la koy jaale baax wax ne euh, gis nañ gis taxawaay mm. bu baax ndax bu yàgg bii la génn dem ci yeneen rukk yu gën a sori yi jotam mm. amul ko mm. dara amul ko waaye alquran moo ko ñu ñu ngi ñaan alquran yàlla ko yàlla fay amul benn nit bu ko a fay yàlla yàlla mi ko danaa nga yëpp euh, sëñ bi moom sëñ Mbaye wax na ko ñun amul lu ñuy dolli xanaa rek eh, sant rek di leen jërëjëfal eh, te waxaan eh, surtout man sama wàll ndax wax junni nga ko sànq maari mooy ki xam ne moo boole ak yéen comme ni ko sëñ bi waxoon ca ujë ba keroog fii laa toog ñam ñu génn ñu moo kiñ sowaay ñu ñu ne dañuy dem réunion mooy hmm. réunion ñoom daal ñu dem aadaara ñu fiy ñëw hmm. dëgg njëkkoon naa koy dégg waaye nekkul. Euh, yéen dañoo war a ñëw moom la yor réunion bi maanaam loolu kay kon kenn moo di bàyyi ma ànd ak ñoom jëfandikoo yi ñu war a defaat réunion ñu dellu àndaat bañ pare ñu dem daral jënd la xam ne ci gàtt yi ñu bokk bés ñuy bokk bis ba bi nga xamee ni problème suma xale bi tolof tolof yi dugg na ci mm-hmm. euh, bañ joxaat ma rendi ma dem mënuma caa jot bañ joxaat ma rendi mm-hmm. ci yoon mujj bi ci gàttal mm-hmm. nag ci laa jox ko ak moom ne ko dama bëgg jox ma numéro numéro Mokhtar Sarr xamal ko fa affaire bi mm-hmm. moom moo tax mu wala boole bi ak moom mm-hmm. ba nga invité ma euh, euh, par réunion bi mm-hmm. ñu fekkee ko nga boole ma ak mbokk mi fataar ko ak sëñ Babacar Congaan Babacar Sylla ñaar ak sëñ Saliou Congaan tabarkaala la ci kon loolu ñu ngi koy fay ñu mënuñ ko fay waaye ñu ngi koy sant bu baax baax di leen sant bu baax baax baax tax tabarkaala di jégalu nag wax dëgg yàlla li ñu waroon mooy fu ngeen taxaw ñu taxaw bët bi seen ñu dugg wax waaw day day dugg fii comme suñ suñu manqué rek la mm. duñ jox ñu benn ngànt loolu mm. suñu manqué donga la suñu suñu manqué donga la waaye fa tarkal heure bu nekk nag ñi ngi ñi ñi ngi ñi ngi koy siiwar mm. ñi ngi koy déglu bu baax baax suñu kattan te itam ñi ngi ciy ñaan ñi ngi ci xam yéene waaw léeg-léeg sax ma ma ma yónnee la wakaal wax xalaat boo xam ne du ma ñëwee mu dugg ci biir biir groupe bi mm-hmm. waaye dama koy dama koy dama jóg ci suuf rek wax la sànni la ko ba xam mm-hmm. euh, tabarkalla mm-hmm. ñu ngi sant bu baax a baax Moustapha nag kon comme li ma leen baagoo wax nii nga xam ne moom tey moom moo fi maa taaw moo fi waroon a taaw xëy na euh, lii la yàlla dogalee maa la ko mu jiido ko waaye mu seen perte bi ak seen kii bi lépp euh, ñoo ko bokk ñoo ko bokk lépp taxaw dem na ba ci moom sax amoon na programme bu ñu jëloon keroog bis boobu mhm. waaye xataayu bis mhm. moo tax jiital gu mu jiital comme xas Maalik wax xas na wax moo tax mu bàyyi mm. waaye xam ne benn xasida bu mu xëy waxaat di yàgg la ko demee ci alxuraan waaw mu xam di di ñaaxe ci alxuraan ak mm. jàngal ko xasida ne mm. kenn naa ko suñu demee danga da ko jàng ba préparé woon na ko waaye xataay jamono ak comme Maalik wax na moo tax mu bàyyi ko waaye kenn ñi nga xam ne nag kañ xañ na la Maalik mënoon euh, tabarkàlla euh, euh, moom xañ du ko mënee ndax nit ñi bokkuñ ci ci ci ci ci nit xañ na xaj ma ne ma ne mu noona waaye na fa tabarkàlla bëgg gi ak gi ak xiir gi moom xam naa ne maa nga ci te it ne moo taxaw ci place Malick moom moo ne ci place bi ne moo jiitu fa Malick taxawoon fii ne moo fa taxaw kon nag a jig lépp loo xam ne programme bu jóg ak lu ngeen fi dégg rek bëgg nañ comme ni nga xam te xam ko xam nañ da ngeen da ngeen ko taxaw ñu ngi leen sant bu baax di leen gërëm yàlla góor gi mooy suñu nijaay mm-hmm. yàlla suñu sag la suñu sutural ndax amuñu ku moom te léppam itam alxuraan la ko jox comme ni ñu ko waxee mm-hmm. waaye ñu leen di jaal seen mbokk bopp mm-hmm. ndax wax dëgg yàlla mm, suñu mbokk la te suñu sag la woon aussi jàpp nañ ne fa mu nekkoon ñun la fa nekkaloon moo taxoon ba dañ ko doon sant yàlla bu baax xëy na lii la yàlla dogal yi ñu nangu dogal yàlla bu baax a baax waaye góor gi wax dëgg njabootam yëpp alxuraan la ndax su man xëy na du leen ma xam waaye Saïd Sall bi nekk Kër Massar mooy ñu ah. yaayam ak moo yaayam ñoo bokk bàyyi xëy na Oustaz Saïd Sall na ñoo xam ne ah, waaye wax dëgg yàlla dëgg nañ loolu daal dëgg nañ xëy na mënuñoo wax daal waaye ñu ngi jéem ñaanal ñëpp góor gi ñu ngi sàkku ngeen ñaanal ko yàlla ci it wax dëgg yàlla mu mag ñi daan wax moo doon jubbanti xet yi looloo waral bi jamono yi nga xam ne Malick mu ngi départ boobu moom mu ngi nekk di jubbanti xet yi nga xam nga boo dee taaw dañu naan taaw sax njàngam du sori ndax yàlla defal na ko sutura itam wax dëgg yàlla yëpp kii féetee ko côté bi mu féetee côté bi ku ñëwee rek am na ku nekk sa ginnaaw wax dëgg yàlla yal na yàlla fayal ñu amiin yaa rabbi taxawaay Ibrahima Mbaye ak Serif Sarr ñoom ñëpp jàpp nañ ni ñun lañ ci wuutu ndax lañ war a def ñun ñoo ko war wax dëgg yàlla alhamdulilah déetee alxuraan ndax ñoom it alxuraan rek la ñu sañ ñoo def leen ndax ku bokkul fii rek bokk fee waaw loolu la rek moo tax wax dëgg yàlla ñu ngi sant yàlla bu baax asalaamaaleykum maaleykum salaam waaw mais moom itam jàmbaar dëgg la mm-hmm. asalaamaaleykum maaleykum salaam di seede si Modou Lo rek mm-hmm. ndax dañoo bokkoon nekk Jurbel yàlla dogal itam ñu dajee Kokki Ibrahima Diop maa ngi dëkk maa ngi juddoo Kër Manumbe waaye maa ngi doog Kour Daal laa toog mu nekk moom itam ku jàmbar wax dëgg yàlla xam naa daa ñëw rek dem ci toxal daara ji ci marché bi mokkal bu rafet ñu xam ko itam ñu bokkaat euh, kii Kokki maanaam programme Roxo ñu yàgg fay daje eh, suñu waxtaan yi day seetal ji xaafis la ñun mbootaay gu nga xam ne moom lañ tuddee yëmeetu islam li tarbiyatul islam di Saalum saa buñ amee programme dañ ko koy yëgal am na yoo xamante ni jot na ci teew fii ci mbir na Koungheul bi ñu koy def jot naa teew mm-hmm. loolu ñu doon wax si mbokk di leen wax ne xam nañ ko bu baax a baax. macha allah alhamdulilah. asalaamaaleykum wa rahmatulah. waaleykum salaam wa rahmatulah. en ah, parent de l'élève en ah, ndeysaan daara. macha allah eh, suñ ab daara bi. waaw. Eh, coono ko si tegoon. macha allah ndeysaan. da ca taxaw taxaw min awali ila axir. alhamdulilah yor ñoo dend kër. macha allah mais yàlla sonn si daara. ku alquran jaral lu nekk. doomam Malick moo ko ñaanal ba mu ko. keroog lëmtoon na ci suñu programme boobu. Hmm. yàlla ko ñu seddal la ko. macha allah macha allah yàlla fay la. waaw ñun de dañuy sant yàlla rek. Hmm. bu baax di leen sant. di nga xam ne ñun ñëpp ñoo ko bokk. Hmm. ñun de ñun moom wax dëgg yàlla amuñ lu mooy daara. daara lañ bëgg. amuñ benn bëgg-bëgg lu mooy nitu daara. képp ku nekk ci daara bëgg nañ la loolu lañ jàppe woon Malick yàlla dogaloon tam nag la ba waxoon kerek buñ ko tëralee dama ne Malick Sall ñun mënuñ ko fekk ku la jàngalal sa doom hmm. daral la baas yi ba mu koy tëri hmm. kooku yow yaa ko ameel jukkal waaye moom desalu la dara hmm. bépp buñ ko mënoon taxawu nag si luñ man ñu nga ca woon xëy na suñ doole moo fa yëpp waaye daara ji day tey buñ sañoon daara yi gën a ci Sénégal lay yi fi gën a ci lay bokk lañ ca man nag ñu ngi ci di góorgóorlu bu baax a baax a baax man lañ waxoon ne jiital ma ci ne yaay jiitu para élève mm-hmm. mateewu ma ko mm-hmm. waaye lépp luñ ci man ñu ko def mm-hmm. maal itam doy woon ñu lool lool lool lool lool ñi nga xam ne ñoom lañ ko seqal di li ñu jàmbar wax dëgg yàlla nit ñu am Pastef daara ji bu yegg si fii boobu ànd ñoo ko fa yeggal yi dafa jël place ko fay bu ne ngay fay cangaal ci mil war a fay courant war a fay ndox dundal xale yi si weer nit ñetti junne mhm. loolu mënta yor daal mhm. ñu gis ne ñun suñu doom dem nañ ba te li ñuy fay bëriwul te amuñu doole nañ jëm a def fexe mu am courant mhm. ñuy am ku volontaire ne man joxe naa teere bisu keree rek dajale nañ dajale nañ ko lu mat huit tonnes yoo xam ne sama loxo lañ ko teg foofu lañ tàmbalee daal ji dugg ci wéy ñi nga xam ne yàlla baaxe na leen di yalwaan comme taalibe rek. Mm-hmm. taalibe yàlla la xam. Mm-hmm. dem ci ñi ñi am. Mm-hmm. ki mën a joxe junne joxe ku mën a joxe ñaari junne joxe ku mën a joxe saako suma joxe noonu lañ toppee daal ci benn ñaar benn ñaar ba yàlla dogal ñu tabax ko bâtiment keroog ba mu paree bunt yi parewul sax maa ngi nekk dañ dem dox ñu ne ndox am ko ko sarto tey lii maa koy def ñu ne courant am ko ne man naa lii la ko yàlla taxawalee mu def ci nag loo xam ne nit mën naa dund téeméeri at doo ko def njàngale mi mu jàngale nit jàngale na daal téeméeri at li Malick réussir doo ko réussir wax dëgg yàlla jàng mbur rafet am yar ak teggin ba nga xam ne bu ñëwee si mbooloo itam doo dégg waxam fekk naa lay toog doyloo ñëpp kon nag ñun wax dëgg yàlla ñu ngi leen di sant xëy na xamante wuñ de man xam naa la man ci télévision yi laa la xamee laa la gisee aar daal bi ngay ñëw itam kerek Mbaye Sall mii ñëw na si man ma jël si engagement bu mag sëkk ma ne ko lépp luñ ciy def man fépp fuñ ma war naa fa def boo aji woon tëj sax mën naa ci bokk kon loolu xamante wuñ waaye ñoo bokk mbirum daara ji lépp loo xam ne daara nga koy def fan la yéene bokk ci kon ñu ngi leen di ko ñaanal yàlla fa mu jëm yàlla na ko gën a mu jëm amiin yàlla balaa daara gi tam ki mu fi bàyyi yàlla na ko yàlla may kattan comme mën na yore daara ji lu raw na mu ko yore woon te am nañ ci yaakaar tam bu baax nag ndax taalibe su jàngee ba mokkal alxuraan jàng xam-xam am taxawu. Mm-hmm. loolu rek loolu rek moo taxawoonoon Malick. Mm-hmm. jàppale bi ñu jàppale woon Malick bu ñu ko jàppale Moustapha rek mu def. Mm-hmm. kon nag nañ ñëpp ku jàpp ki daara xam ne daara ji ñun ñoo ko moom suñu njaboot a ñëpp nañ ci jàpp. nañ rek mu dem am nañ ci yaakaar nag bu baax ndax maa bi ñu léegi ci ci ñetti fan lay toll. te na lu ci fe jotaguma feeñ. xam ne kon liggéeyaloon na yàlla. am na yu fi jotoon a yoo xam ne nii keroog bu ñu fi jógee léegi. am na yu fi jot feeñ yoo xam ne wax dëgg yàlla sant yàlla ndax bi mu fiy jógee koo bind ab këyit wax li mu bëggee wax ni damaa yor si daara ji juróom benn fukki junne ak ñaar nit ñi dajale dem di fay ka nga xam ne moo ko yore mu ne bale naa ko est-ce dellu yónni ci Kaolack indi juróom benn fukki junne ak ñaar hmm. del ne maa ko def ci bor faye naa ko kon kooku gannaawam leer na nañ hmm. lépp ñu boole ko dem jënd ko ay matériel yóbbu ci daara ji tey boo demee fu ñu daal ñu ngi fa bëgg a ñu nga bëgg a karole mm-hmm. mbaar ma moo tali bâtiment ba nangam nangam kon gannaawam mm-hmm. nañ ñaan rek yàlla yàlla bu ko gémmiñ jiitu yàlla bu ko gémmiñ jiitu paa bi itam yàlla na ko fi yàlla yàggal lool te may ko wér lépp moom la mm-hmm. loolu laa lañ ci amoon kàddu sax macha allah asalaamaaleykum wa rahmatulah waaleykum salaam wa